wa inni samaytuha wajhu nabiyil muntaqal mujammali asanu min kulli muniirin mukmali wajhu nabiyil muntaqal mujammali asanu min kulli muniirin mukmali ahmaduna al muxtaaru nuuru naasi mawliduhu mustaxsiwul xannaasi nafaa li xayri matuul anina waxaada lil quraana wal funuuna nabiyuna ahmadu xaadani ilaa rabbi wa rabbiya lahu maal ilaa يسر خطي رسول الله عليه تسليمات محسن الله يسر خطي رسول الله عليه تسليمات محسن الله سعادتي بلم عين ثبتت كما بساتيني بي قد نبتت ملكت خير الخلق خدمة سفات صدور قوم مؤمنين قد زفات ملكني الدنيا وأخرى السمد ما ينده لاختاره محمد ملكني دنيا وأخرى السمد ما عنده لاختاره محمد يسر جند لا يختي أبدا وأبدا يسوء من لم يحبدا تسليم من قبل لأقرادي على الذي تسر أقرادي حدمت باطلا بقة قد قبل wa farra iblisa waan dore ko bil am daawu asanil waral mu jëmmale lii qaladat usna min al mukammile amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin santanwar banoo amee ku mel ne daa Mbàkke mu nuy bëggal ci Moustapha ca Moustapha ci xasidaam borom Tuuba yaa féete ñépp kaw ku fi yow raw góor yàlla yépp naw yépp naw sunub Sëriñ Bamba tisbaari jeewal moo waral màggalu Tuuba sëriñ bi nee màggalam gi waaju ko màggal am palaas ca gaal ga tisbaari jeewal lañ ko jox me daay ma njol ma kanaan ko doxal foo geesu gis ma tisbaari jeewal lim defar ci diine kenn mënu ko lim xable yow mi diin tisbaari jeewal ku dem fa pey ba xam ne borom Tuuba du maasum ba tisbaari jeewal la murit yi metti loo keroog ba muy dem ca géej ga dane maam Cerno maam Cerno maam Cerno Faati ana ko sopp Cerno borom Daaru Muxti dane maam Cerno waxal murit yi nan dëgërlu tisbaar yi jeewal moo waral Mamoor Jaara borom saam di magam ba noppi jébbal ko jëmmam ngir borom saam tisbaar yi jeewal moo waral sëriñ Masamba sëriñ bi na ah, Masamba laa sanba tisbaar yi jeewal moo waral waa diine di wax ne Seex Mandumbe Cheikh Mandoumbe Cheikh Mandoumbe ana ko sapp Ahmadou Ndoumbe xabaan waa addina di wax ne Cheikh Mandoumbe teen budul dey tisbaari jeewal moo waral waa kër maam Cheikh Issa Diène di yóbbu addiya yi maam Cheikh Issa Diène tisbaari jeewal ah. moo waral Cheikh Issa Diène maam Cheikh Issa Diène ana ku sapu baayu sëriñ baara jenn maam Seex Isaa jenn tisbaari jeewal moo waral waa kër maam Seex Isaa jenn di yóbbu addiyey Seex Isaa jenn borom daaru la wóolu woon ba jox ko ndénkaan mu sàmm ba Bamba ñëw mislaha roon borom daaru borom bayte ba ba Bamba daaru la wóolu woon ba ko ndénkaan mu sàmm ko ba Bamba ñëw misraaroon borom daaru la wóolu woon ba jox ko ndénkaan borom bayte ba ba bamba ñëw mislaaroon borom gaawaan la def ne buur mooy sab Suleymaan fum yandu moo mel ne it yayoon njoowaan borom daaru Jokondenka borom bayte ba Musa Moko wax leen jaarama kuy murid

ana soppeem yi Serigne Mandoumbe Ahmadou Ndoumbe xabaan mbooloo mi na ñëpp jóg màggal Cheikh Issa ma ku jóg taxaw màggal Cheikh Issa bu déwee ne ñëpp ak Cheikh Mandoumbe na ñëpp jóg taxaw màggal maam naar yaay so Ahmadou Ndoumbe xabaan borom ngërëm la rijal la murid saadix la Mandoumbe Ahmadun Dumbe Xabaan ngërëm la rijal la wax leen sëriñ ma Dumbe Dumbe Xabaan sëriñ ma Dumbe Ahmadun Dumbe borom ngërëm la rijal la murid saadix la Mbandumbe Ahmadu Ndumbe Xabaan ngërëm la rijal la Serigne man Ndumbe Ahmadu Ndumbe Xabaan Serigne man Ndumbe Ahmadu Ndumbe Xabaan borom ngërëm la rijal la murid saadix la mbooloo mi nañu maase jug taxaw ca kaw màggal Cheikh Mandoumbe maa ngi ñaan ko jug màggal Cheikh Mandoumbe yàlla nga fekkee déwén ngërëm la rijal la wax leen sëriñ Mandoumbe ax ma doon dumbe xabaar borom ngërëm la rijal la murid saadix la Mandoumbe ax ma dundumbe xabaan gërëm la rijal la sëriñ man dumbe ama doon dumbe xabaar borom gërëm la rijal la murid saadix la man dumbe ahmadu dumbe xabaar gërëm la rijal la yaa gërëm Seex Isaa yabal ko la gan njenne yaa gërëm Seex Isaa yabal ko la gan wax leen yaa gërëm Seex Isaa yabal ko la gan ko la gan demal la